It's uncertain times for Gambians who make a living from the streets of the Gambia. Gambia has thousands of citizens who sit by the highway to sell various goods. But the Office of the Inspector General of Police last month concluded that the nation's roads are being obstructed. His office then announced an operation dubbed Operation Clear the Roads. Officers on Monday descended on the Sukuta traffic light area to remove anything that makes the free flow of traffic difficult, but the victims, mostly women, are not happy. a ah, jang tolu ka ɲa kɛ tan bulo kono surprise le te kanto n be si n bijanna dodo n be alan sara ko ɲe ko be salo nko n te be pareta n ka janata muru a ko ni pareta yela ka sol pake n ko bibi a ha fo mine be keeri ha n ka ne ba doro n ka n tete ɲin bibi yali ne ko ɲin fen ko tentel a ko ɲe ni i ma bondi fana n te n ila baka sol la kasaro wala atin nga foy yo barbu tu niye e bondi je salam ni me bondi fan ila baka sol kasara hani man fe foy aya fonya ten butu wotu molo o sutole ta bola jan suto 12 man na fengol be parking e be londi fano kata ro nga dindi ngol kumandi ne na tanga molu joy e jandaji nga nyen dundi jam imaji han bi lambe ka firo ka bi loku be ka firi ke non na fengol be be sorondi adun tol nga man sa julole ta nga na samba ka sol nga keja nga banki le ta nga na keja sayi wo ɓe felelori ni wolla jowa to sitan tol talon nan ɓe mine kele wol ɗum talon na ko mantara firole a buton tolum ɓe ala ɓul ɗoron ɓe man saɓulu a adam baro ay fereke ay kuma man saɓi ke deyi ay ɗiyamu kuwa ɗolu ni woli je ka woli fole aka banne ni man sa ko silo bo kunte muta ka bo jele ba naka kana bo fana abi ka bo mbe tembo min to fana ya hakilo tubake mbe tembe da min to nte molu ni torandi wato to de minnu ka puusa niŋ minnu ka puuse ka fo a ye ko taa musoolu bondi dulaa to i be a kaŋ ne man tara eh, fenke tamano électiono ka ñaati liŋ ate eh, ka ñiŋ maañaa ke teŋ a ye hakkiloo tuba ke nte sewo fo no waaye laa de defee suma business dama fi am a eh, small stall fii laa de jaayee every day so yaaga naa fi three years am like four days man fruits laa de jaay vegetables and some milks and sugars and the like So I since 2018, when I graduated high school, I came here. So when I started fee, was everything was fine. I'm the first person around here. So why? After all, you sit a while. So this year, um, then I'm fi bena notification dal. Then wara joge fee. Then you, to be honest, you on si benn side of the highway You ne nit you joke. Why waaye side big guy? yi waxuñ ñu dara so léegi man mari def suma own findings um, si operation team la mu ne ñu ne waaw gars yi ko wax on air on radios on television ma ne ko ok fine waaye ñun wi receive no document or anything so and then yeen ñëw ngeen tey rek ngeen ne ñu jógee fi ok fine jog bi sax would not be a problem because gars yi lu ñu wax make na sense ok ñu ne waaw gars yi dañ bëgg a um, enlarge the highway nit yëpp xam ne ni accident is too much in di Gambia so to avoid all those things highway bi at least dañ ko war a war a move away loolu is development ñun gameen sax dañ war a advocate for that because tam luy jëmale sa um, dëkk si kanam yow tam loolu da nga ko war a accept as a citizen soo buggee sa country loolu moo nekk number one priority country first before one interest waaye léegi ñoom ok bu gars yi ñëwee fii ñu ne ñu ñu jóg by right gars yi dañ war a allocatal nit yi fu ñoo dem understand nga because gars yi gars yi joxuñu ñu naan joxuñu ñu lekka ñun ñu ngi fi ñun ñu ngi struggle tan suñu boppam because dañ wax um, every youth have to involve in something else ñun sàcciwuñ ñaanuñ kenn demuñ we would have do all those things and we avoid loolu yëpp ñun léegi ñu ngi utal suñu boppam fu ñëw survive léegi yow nga ne ñooñu yëpp nañ jóg ba pare yow ut joxuloo allocate loo fenn foo xamante ne nit yi fu ñu foofu la ñoo foofu la ñoo dem ba pare in fact waxuloo ñu dara lu leer xam nga ne loolu noonu it's not justice what have been lan moo nekkoon justice moo nekka first you find a market or a place, a suitable place, and then, okay, all those street vendors, let them come here, and, and they living. Kenn du doon complain ku complain sax ñu ñooy dal sa kaw waaye léegi yow nga ne ñëpp ñu jóg ba pare alloqué tuloo kenn fenn jóg leen rek jóg leen rek dat kanoot bi like man man maa ngi man maa ngi MDI maa ngi fay suma tuition fii fii man fii laa nekk di fayee suma tuition fii soo léegi fan nga expect man ma jëlee xaalis boobu noonu unless and until some people help te ñun bëgguñ taxaw si kenn ñu ko may ma oo defaral ñu lii nii understand ñun we don't beg anybody but what we are saying is government bi nañ ñu utal solution as as right away area council ñu fi KMC ñu fi ku nekk si kon sa sa sa area na fa build a market oo nga fay nañu a suitable place nga ne all the street vendors from kay xama from KMC to this point let them all be here okay nga ne Brikama area council started from here to there Brikama to to to let's say turntable or whatever ñoom yëpp ñu dem fii nga xool na di nga gis street vendors yow we no see street vendors because boobaa dëkk bi dañoo awee ha waaye lii dafa waroon a nekk let's say a gradual thing because dañ waroon a advocate lii first before all this so ñun daal ñun we don't accept this xam ne ni development na waaye the way do it we don't accept it nañ ñu allocatal nañ ñu final solution immediately waaw we are not here for politics we are not here for anything we are just here to tell them that lii dafa war a nekk in another way round explanation la léegi ñun de lii lañ soxla si ñoom te government dañ war a xam ne youth yi ñoom ñooy yóbbu ëllëg dëkk si kanam ñun youth leen ñun ñooy nekk ëllëg waajur yi o whatever léegi ñoom suñu traye suñu suñu suñu tëjalee suñu bunta bi léegi ñun ñu ñoo def so all those factors you know there are so many factors leading to this man since day that day Thursday up to date man receive ma benn penny from anyone because I'm not used to it am used to sweating and ñun loolu lañ xam liggéey ak jëfoo loolu lañ xam so from that day ba léegi ñun kenn joxuñu dara amuñ fenn fuñ demee jëlee anything soo léegi nag te I am not the only one ñeneen ñoo ma gën a métti la sax ñeneen nga xam ne full restaurant lañ am kooku noonu Baye Raye they should have been compensated even though they said to sell in the street is illegal in the highway is illegal yes we accept that but in Gambian context xam ñun xam nañ ne dëkk bi amut opportunity job opportunity understand soo amuñ beneen way around loolu rek moo loo moo nekkoon suñ gateway léegi yow soo waxee ni am um, opération bi yëpp throughout the Gambia la la ñaata wul nga nar a affect lii dafa nekk problème bu mag xaw ma kan moo nekk head of it de waaye gars yi dañ war a indi solution immediately because poverty bi is the high the rate is too much understand so man daal loolu laa am pour wax leen and then they have to hear us right now and try to find a solution right The vendors say they are not against the operation as it's part of national development, but the way the officials are carrying out the operation is uncalled for, as some of them are being insulted and their goods are thrown on the floor. Eh, maa ngi doon eh, drive nak, léegi noppale ko naa ci drive in bi léegi maa ngi ubbi place fii di jaay maa jaay këriñ di jaay banaana di jaay pom loolu daa doon yëngu fii waaye nag gars yi jékki-jékki ñëw nañ fii ñu nañ fi jóge ñu ñëw tas place yi waaw bi ñu tasee place yi nag ma ñoo eggale sama place tas ko léegi maa ngi xaar yàlla pour ñu jox ma feneen waaye nag li ma mën a wax gox mel ne nañ ñu jox place fi ñu mun a liggéey ndax ñoom ñoo toog ne doomi Gambia bu nekk da nga war a liggéey kon ñun paa yi bàyyi nañ grand place yi di naan ataaya ak maire yi ñu ngay jóg di yëngatu li dimbale sunu bopp dimbale sunu njaboot mun a jaamu yàlla xale yi góor bàyyi nañ grand place yi di naan ataaya ñu ngi yëngu fii di jaay di daan seen doole kon nag bu buur ñëwee tey nañ fi jóge alhamdulilah rabbil alamin dañ fi joge waa ñu ngi ñaan buur tamit ne nañu jox place fuñ mun a continuer suñu liggéey ñun politique wuñu xeexuñ gerewuñ ci jàmm ak salaam lañ leen di ñaan bu dee mën a nekk lu nekk bàyyi nañ ko ci loxoy yàlla nag moo ah, more than three years four years daal ndafaŋo doobi jee nga doolu tara janne mbe waafiriw dol bi ni nin dol kasi jang wol ila dimbala baluwo ikole nyini jang but ngaji be sai ni en sol bay jang tumando waton ma ko kole ada bayrin tam sungu don ta se keso don ngata bar wol be sirin ja how many years ib ke la dimbala baluwo ke dol bi je ke fata itolle be resri dimbala baluwo la iba nyini la ibe tara ko sen sai ni en bon yang tumando da hada madin ni abon di dulado te ka dulado di ara be sirada Barian tol bondi jan the next minute waljita simun tole bel dimbal ni na re, the next minute huta jam fane konta siraje say e lafta nga kenyadi say e banko kan ilafta e munela ka tu muso muso ka taro nyin, akal dimbal balunde ite ko e bondije say ita simi mana da wan kan understand ye mo bondi dule ka dulal diale ka faisi bari ye mo bondi dule ma dulado dia price ewo diyamo bo siyala diyamo bo siyala bakel tonya tonya muso dol bijang ila dimba ala balu obi to la bulo kom sa yem bondi ja how many years i kele fengo de da one week mba ni la nga da da ka tinya wala nya ka because mo bu kanana yellon jenne sa ni boda jambita mi o diyamo siyata de ala fo boro ya jibe ku ibe min kan ba kan kula ba ni mu ni ku ya balti de ni kuya babalo tonya tonya yen tora nin koy man tora nga wuli ya fo yen tora ba ke nte tonya tonya ndam di no ba nda ni musul min kasija tonya tonya ni wato ko na ba ko kole ari ba ke a kole ate ba ke ni ni hanama di tonya fo ni ale dia ba nyil fon ka mol ke min man sa fon me lawa ni ko moy wuli ibina le ba wuli ne ba ba ga sol ti tinyale ibe nen ne ba ba bi sol fo fole o dimital However, these vendors are crying that their families rely on them, and it's been days they didn't sell anything because they didn't have a place to sell their goods. Some of their goods are perishable goods, and they've lost a lot for the past days. They are appealing to government to allocate a market for them. For TFN News Review, Mati Senghor.